noo gisee embouteillage yi sénégalais di def course à la montre pour que bala vingt une heure jot ku ne egg këram mais embouteillage yi tar ñu ngi nii rond point Liberté 6 waaw jërë ngeen jëf mbokk yi Cheikh Tektal Tektal TV Cheikh Talifan ah. parce que loolu moom li ci metti mooy ci bis bi defe naa bi euh, décret bi génnee ci laa ñëw mu guddi guddi defe naa maa ci njëkk a def vidéo ci Tektal TV boo xam ne que am na ñu bari ñu naan ma lii du sa domaine waroo ci wax mbirum politique ma ne leen nag nit ñi ba il faut que buñ toogee ba. journaliste yu bëri yi ñu doon waxal nekk ci biir régime bi toog di ne teg société civile yi mënuñoo tudd tur mais xam ngeen quoi avocat yi ñu bari dugg ci biir ne teg ñun ñu toog fi ñu toog am tamit lu nu yàlla mën a may wax ñu ñu dégg ñu ñu ne dun wax toog seetaan lii ba kañ parce que tamit vingt et une du problème mais avant vingt et une mooy problème xam ngeen ne lii ñuy dund koor lii moo kooreem te koor gën a sedd ndax koor bu naree ñàng nga ndogo àll mais li ñibbi force la et nit yi ñaxtu il faut que ñu comprendre ñooñu askan normal lan bokkuñu ak bandi yi bokkuñu ak ñaxtu yi parce que nii boo wàccee situation yi ku wàcc 15 heures sax jëm Kër Massar doo àgg dafa metti et puis dëkk bi yëpp ay travaux la travaux yi bu dul dara problème la woon man bu ma doon wax dama naan ni travaux yi ci dëkk bu fekkee koor gi dina metti ndekk lu gën a metti koor gi ñëw na wax dëgg yàlla euh, virus bi xaw ma day nelaw day yeewu vingt et day yeewu vingt mais corona moom fatt nanu te man li ma dàpp li ma d'accord te di ko wax Caaba Sané boo amee sa xarit wala sa mbokk ñu ne la bëñ ba day metti da nga koy yërëm ñu ne la nopp bi day metti danga koy yërëm ñu ne la tànkam day metti da nga koy yërëm mais feebar bi tax ñuy tëji jumaa tëj jàkka tëj lépp ku ko am kenn du la yërëm tey par exemple dañ naan la Neymar dafa corona nga ne oh kon match bi du football yaa ngi xalaat prochain match day ñëw ñu ne la Mbappé dafa corona nga ne oh kon match bi du football yaa ngi xaar baneen mu ñëw Cristiano Ronaldo jox nañ ko Salah jox nañ ko Sadio Mané jox nañ ko Corona mel ne ku soxla promotion képp ku am tur ci àddina ñu ne jox nañ la korona dafa ëpp quoi wax dëgg yàlla ba léegi il faut ñu comprendre nit ñi danoo yeewu kay nekk Maison Blanche ak ka nekk Kër Matar Diop région de Louga ñoo bokk na ne xalaate jamonoy internet la nekk internet bi mënoo koo naqaril ba mu neex ci ñi naqari ci day naqari ci ñëpp comprendre gis nga tey problème bi te et puis couvre-feu yi image def estati dañuy boole yu yàgg ya ak yu bees yi yëpp bu ko defee influence la ci dëkk bi waa Medina génn waa Gueule génn ñi loolu fitna yi mu indi ñi ciy loru dara jaru ko problème bi mooy nan bàyyi nit ñi ku bëgg a dee mu dee ku bëgg dund mu dund ku ragal mu toog parce que man mën naa comprendre tey imagine ñoo xam ne seen business ni mu yàqoo da ñëw ci jàkka di julli masque tax doo fa dugg duñ jëli masque teg ko fa jox ko nit ñi ngay jaay boutique kenn di ñëw di jënd lu a ëpp quatre-vingt mille ah masque tax nga ne ko déedéet doo fi dugg di dugg ci banque yi masque tax doo dugg masque il faut ñu comprendre ni am na ñooñu mënuñoo sàngu ba daj bay dëkk yor masque problème bi ñun bu ñuy werante ay football la ñuy werante ay Real Barça yooyu suñu yoon nekkul ci siège bi président bi toog xëccoowuñ ko soxlawuñ ko mais fi problème bi nekk nag bu ñu demee bay ñaxtu nag li nu metti mooy danoon laal suñu mbir parce que tey fi nekk nii gor gum ci man di doon bu ci yàlla jàppul léegi ñu bari torox de ñu bari ñàkk nañ seen liggéey ñu bari la nga dencoon ngay génne jox ko loolu day yokki bandi yokki agresseur il fallait que tamit buñ xool ne nitu kersa lan wala waruñu wax rek ñëpp toog lu ne ñu teg ñu ko mu metti ni ni faje tamit d'accord ma ci yàqi biis yàqi commissariat yàqi kii loolu d'accord ma ci parce que loo yàq ëllëg sa alal lan koy cotiser mu demaat président ba nga tëdd fa muy tëdd mais yërmande il faut ñu am ko nit ki ngay jël place nit ki teg fa sa bopp lii bu doon yow la lii la daa ko ci Sénégal mais boo nekkee ci lenn lépp lu ni xeex baax na ñii danoo réew boo ci nekkul lépp loo doon xeex war ne baax na tey nga ne bon na loolu mun ñu ko d'accord am na ñoo xam ne que tey fii may waxee ñi ñëwoon ci biir régime bi couvre-feu amoon ñu d'accord ci tey couvre-feu génn nañ ci diggante si wala déggoon ak président bi couvre-feu amaat d'accorduñ ci il fallait que ñuy wax te yàlla tax sans suñ intérêt comprendre parce génn fii ñu lor la ñëpp bëgg jàmm mais jàmm du lu ni ñaan dañ koy wut mais am na ñoo ñetti fitnal génn taal du wàññiwu leen dara léegi mais innocent yi cay dee na wax dëgg yàlla couvre-feu bi moom xaw ma douze jours la xaw ma treize jours la mais mi ngi fat bëgguñu ko amul njëriñ corona ñun Afrique la nekk min nañ si buru ngas gaana yow yaa ngi fekk boo nuwaa kinin xale boo ko doon jox sa da nga koy forcer pour mu naan ko mais bu bëggul da koy bàyyi mais vaccin wu ci fol ci lan ay rumeur yoo xam nit ñi xamatul léegi lu ñuy def te et puis affaire bi bu dee ndigal la nag yu jóge ci kaw ñu xam ko parce que tey par exemple lu daaneel Trump mën na daaneel keneen de ndigal yi tamit ku ko dul appliqué ah léegi nga wàcc de ku koy appliqué tamit di nga lor sa askan man daal lii laa gis ne vingt oto yi taxaw fi mu nekk nii ñëpp jëli moto barki démb sa koñ fële amul borom moto bun fa lor ndax lan la mënatul dugg ci oto yi oto yi du dem benn moto bu ndaw bu paane ci tali bi oto yi duñ dem dëkk boobu lañ nekk bokkuñu tubaab yi tubaab yi bu ñu tëjoo dix ans xam nañ fu ñu jaar ba dem loolooy problème bi quoi eh, moo tax ñi war a wax nan wax xam ne vingt et une heures du yoon vingt deux heures du yoon nit ki nan ko bàyyi mu circuler parce que li ñuy dajaloo bëccëg bi moo gën a garaaw guddi ki waaw corona nag bu dee ay pexe la yooyu ñu xam lan la quoi et puis tamit maa ngi wax leen na nit yi moytu maa ngi koy wax dégguñu ko bu baax képp kuy kilifa diine wala ngay wax na nga tey ci corona parce que mën nañ xeeb sa kàddu ëllëg parce que leen ngeen déggoon bi euh, Kazu Rajab ñëwee daaw lu nu wax corona dañu Kazu Rajab bam dañ koy def ci mbatukaay yu dal ban Kazu Rajab bee ñuy séntu ne buñ paree ñu yokk kaay ñu pare naan kaay yaa ngay wàññeeku di wàññeeku Touba ba xëy na jeex na bis ban nee jeex na lan commencé na commencé waat na léegi yow boo façon sa xol na est-ce que du mbirum baatin moo tax mu jeex duñ la fen fekk beneen bi Ahmed Khalifa Niass ne bu màggal Touba ñëwee dootoo fi dégg korona màggal ba mu romb màggal Touba ñëw déggatoo korona mu jeex ñu indiwaat ko waxam boobu noo koy déggate kon toxuwut léegi màkkaa ngi nii nit ñi tàyyalanti dem jumaa waajal waajalatuñ dem màkka kenn mënatul def lu baax kenn mënatul def caaxaan amatul farata amatul atum lëm dafa doy in faut que ñu libérer nit ñi ñu nekk seen jàmm tey boo gisee xoolal quatre-vingts personnes doo ci gis ko yor sel masque yi force la lan la bu njëkk kenn forcé wul nit ñi ñu jënd seel ñoo koy bëgg di ko wuti boobu ñi ñi ñi ngi volonté wu pour xeex bokk ak nit ñi xeex bi mais looy xeex nag at am 10 cas tëj école yi def couvre-feu pare am mil cas toujours daal ñun buñ sàgganee corona ci leen gën a néewle mais buñ ko gënee farataal ci la cas yi ëpp ak ñii dee ci corona am nañu ana seen i mbokk tamit nit ñi xam leen doy ne waar daal wax dëgg yàlla affaire yi daal moom rax na daal loo xam ne que man moom sam bopp sam masque sam poos lay nekk mi ngi nii parce que problème bi mooy gëm ma corona gëm ma ko te mi ngi nii gëm ma ko dama koy takk rek pour bañ a déranger pour mooy dugg foo xam ne que laaj na ko mais dëkk bi nekk parce que lan bu njëkk an nañ xeex bi xeex nañ ba sonn un an de problème de tëju dafa doy ñaata nit a ñàkk seen liggéey nit ñu dundatul il fallait que ñu waxante ko te dee yéen ñu di liggéey ci média ñun ñëpp xam na li ñu dund metti na parce que mënoo dëkkee di fere te doo am dara loo amoon nga déndi ko loolu mooy yolwaanil bu demee ba nga xiif ba yolwaani loolu nag lu la sant nga def ko mais nan ñu may jàmm daal wax dëgg yàlla te war a wax wax.